Pikine fi ma juddoo président Macky Sall ñëw fii ci Pikine ngeen teeru ma ko teral le ma ko fii ci tali bu bees fii ci angle étoile de l'Est ngeen teeru ma président de la république mu tàllal ma loxo ma teg ci sama loxo teg ci loxo waa Pikine ak léegi nag yéen a ngi ànd ak man ci àndu ngor ànd ak man àndu nawle ànd ak man àndu doomu ndey ànd ak man àndu doomu baay boobaak léegi nag fukki at ak juróom la fu ma ni foofu la rekk bala may àggal ngeen fu ma kupp ngeen fay ñu toog ba le 3 juillet dernier président Macky Sall nee na moom dey du def troisième mandat nee na moom euh, ci màndaa bii ñu ne ci lay tàggoog waa Sénégal wox ko biral ko àdduna bi yépp ne nag na ko nit ñi toog déglu ci biir déglu bi nag tànnul kenn ku nekk jóg wane ni man ci laa wane ni man ci laa bokk wane ni kat légitime naa authentique laa yàgg naa ba ñuy sos maa ngi fi man nag ma jóg dëggal sama bopp di jigéen ne man kat damay bokk ci candidat yi ndax li tax may bokk ci candidat yi mooy dama gis waxtaan wi yépp dégguma ci benn jigéen gisuma bi turu benn jigéen jib ci du ci biir du ci biti man nag ma biral sama bopp ne man nag dinaa bokk ci lang gi bokk ci xare bi ànd ak góor ñi lu góor man rekk jigéen mën na ko ñaari loxo ñooy takk sër waaye ñaari loxo tam ñooy takk tubéy fukki candidat góor ma doon benn candidat bu jigéen nekk ci seen biir ñu dem nag ba jamono jii ci ginnaaw samdi bële ci kaw président Macky Sall nee na génnee na candidat ki war a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokkoon man nag ma ne nag damay dellu si Pikine sama gox Pikine fi sama baas naturelle nekk ma am fi base am base ci diaspora bi am base Touba am base Podor am base Ndar am base Sénégal gi yëpp ma ne waaye charité bien ordonnée commence par soi-même fii laa tàmbalee woon ak président Macky Sall fii laay dellusiwaat si wax ak waa Pikine boo ma déggoog waa Pikine ci li ma bëgg a def ma doog a nag samp sama xel xool fu ma jëm léegi nag yéen waa Pikine maa leen woolu woon pour livrer leen message bii ma leen bëgg a wax mooy dama bëgg yéen ñëpp ngeen laxasaayu jaaju takku te toog déglu ma tey nag dama ni woon réunion rek laay def réunion boo xam ne réunion en interne laa ko bëggoon def bi ma xoolee xajuñu ci biir kër gi ma xool xajuñu ci bunt kër gi ma ne nañ leen ko indi ci mbedd mi sëriñ Abdoulaye Mbacke sama sëriñ ba da daan wax naan ku ma demal ci waar wi boo wettee sa ñaq boo dellu see ma ne la jërëjëf yéen waa Pikine maa leen ni jërëjëf newaat leen jërë ngeen jëf jërëjëfati leen léegi nag li ma leen di wax mooy dama bëgg yéen waa Pikine yéen sama waa base yéen ñi ma wóolu yéen ñi ma gëm yéen ñi ma yaakaar ngeen toog déglu ma balay yàgg tuuti dinaa ñëwaat ci see ci yéen wax leen fu ñu jëm ak nu ñuy def loolu nag defe naa su ma leen ko waxee war ngeen koo mën a gëm ndax man de duma wax waxeet duma ni du ngeen ne lii de xamoon naa ko kon rek waay ni ngeen ma doyee doyloo jox ma seen bopp ma doyloo leen am ci yéen confiance ñuy ànd ànd confiance moo tax ma wax leen ne yéen fii ci Pikine ak fudul pikin message bi may jàllale dafa valable pour waa Pikine waaye dafa valable pour ñeneen ñu nekkul pikin na ñëpp toog déglu yàggatul maa ngi dellu siwaat ci yéen wax leen fan la ñu jëm fu ñu dox jëm cap pour 2024.